dañ duñ ko def te loolu di ay jiyee rek lay indi. li mm-hmm. nga souvent nit ki day def dara nga sanctionné ko pour dimbali ko wala pour dimbali ñeneen yeneen victimes yi mu war a yi mu war a kii. Mm-hmm. am naa sama benn nijaay gendarme la. Mm-hmm. man souvent nit dafa may triander may négocier di négocier rek du ma porter plainte mu ni ma dangay ngay porter plainte. pas pour yow. mais pour ñeneen ñeneen victimes yi. les prochaines victimes. damay joxe benn exemple bu concret. en 2016 jamonoy Macky Sall dafa am. benn directeur des service des mines bu nekkoon Louga duma wax turam dañ ko inculpé si corruption mu doon délivrer ay ay ay kii ay carte de visite ay carte grise mm-hmm. d'une manière illégale ñu ñu ñu ñu ñu ñu condamné ko en 2016 ci Macky Sall la far xam nga ni kon kooku daanaka dafoo war a dem tëdd kaso ay millions loo xam ne teguwul si yoon ñu dawal 2021 Macky Sall jël ko fal ko PCA Ferra. waaw récompensé ko. Mm. est-ce loolu moo fi nekk corruption bi aussi ci policiers yi ak ci gendarme yi. Mm. Euh, chauffeur yi dañ koy jooytu guddi ak bëccëg gis nga chauffeur bi souvent il est énervé. Mm. parce que man ngay daw ñu jàpp la lekk sa xaalis. nga déparé waat foofu rek mer nga déparé mer. te chauffeur souvent ils ne toujours lucide. Mm-hmm. nga déparé mer di def gars yi di wax ak doo leen faale. donc kon rigueur yi war a am. Mm-hmm. moom lañ deful léegi nag gis nga renouvellement parc automobile yaa ngi koy wax léegi yaay Adama. Mm-hmm. ni ñu koy defee baaxul. parce que état toujours su koy def dañuy jékki-jékki la fois passée dañu dañuy débloqué 17 mille mili 17 milliards. dem jëndi ay oto. suñu ñëwee dinañ dugal oto yi mais oto yu màgget yi dañuy continuer di exister. loolu amul sens te oto yu màgget yi. drame yi ñu doon def dañuy ko ne di ko def. Mhm. pour man xamal la mooy solution bi renouvellement parc automobile da ngay jël. Mhm. nga ni Adama Ndiaye. Mhm. chauffeur nga sa oto bi dafa màgget léegi may nañ la nga lijjanti ji oto bu mel comme sa bos bi en Europe. nga jënd ko mu ñëw doo fay droit de douane. soo ñëwee nga récupérer oto boobu oto bi nga jox ñu ko. loolu chauffeur boo ko wax nangu ko. su ko defee dañuy indi ay oto yu nekk en bon état. Mhm. am airbag frein yi di dox normal organes yi dox normal pour oto yi wàññi dérapage bi mhm. mais dañuy wax renouvellement parc automobile indi ay oto jox ko mhm. seeni nit. ña nga xam ne ni ñoo yoroon oto yu màgget yi dañuy continuer di yor oto oto yu màgget yi ba léegi beneen bi mooy service des mines bu dakaar rek ngay yóbbu sa oto. ñu defal ko diagnostic yeneen yëpp fi nga nekk ngay taxaw yónnee sa carte grise. sama benn xarit alaaj Hadj Moussa Nguer su bëggee. Euh, su bëggee visite technique carte grise bi lay yónnee lay yóbbante cees mhm. suy ñëw day am tampon oto boo xam ni ñëwul. ingénieurs yi gisuñu ko ba pare ñu valider ko ni ko yow techniquement man nga daw ci kaw tali bi xam nga loolu c'est pas sérieux mhm. loolu moom moo fi nekk. loolu mooy problème bi suñu bëggee résoudre kii léegi nag res ralentisseur de vitesse yi gis ngeen yoonu mbooro bi. Mhm. rarement man laa fay dégg Euh, accident parce que ñëpp nee nañ dafa bëri doo daan su fekkee yow def nga doo daan tous les un kilomètre wala tous les deux kilomètres oto bi balaa muy tendre bay def jéye daraat ci beneen doogaan doo daan wàññi. Hmm. boo ko defoon xamuñu waaw chauffeur say njëkk naan yaa di nga gis léegi ku ñëw. Mhm. organisé wu. Mhm. wut ay booyam. Mhm. ñu dindi doo parce que day jàpp léegi nag état moo war a def rigueur bi ci war gis nga état moom dafay xam priorité priorité mooy lan je préserver la vie des citoyens et de nos concitoyens moo ñu ñu teg ay kii su fekkee ni yaa ngi doon def une heure de temps si yoon bi nga def si deux heures de temps avec sécurité moo gën nit ñi di dee nii rek comme ay weñ. doy na mu